sympathisants yoo xam ne ñi ngi fa woon euh, doon xaar Ousmane Sonko mais ginnaaw bi ci la ñu gis ne am na ay jàppante yu am fii militants yu bari jóge foofa ngir ñëw jàppale si yenn booy yi nga xam ne ñoom ñoo doon jàppante fii euh, ba waral euh, li nga xam ne moom mooy jàppante yi gënoon bare côté bi fee nga xam ne booy yi ñu ngi fa mooy mairie bu Touba moom lañ jàkkaarlool ne la reculé woon nañ. fexe woon nañ ba euh, faire reculer les manifestant ba ñu perdoon li nga xam ne moom mooy mairie bi ak euh, Sonatel bi mais booy yi dañoo ñëwaat ak doole ba nga xam ne euh, takk der yi dañoo mujjee replier wu ñi ngi nii romb station bi ñi ngi taxaw ci ginnaaw ci ginnaaw rond-point bi masala gis nañu sapeur mi ngi noonu ñëw station bi moom la ñu moom la booy yi taal xam naa bi ñu ko taalee ñoom sax ñu ngi ko doon jéem a fayaat mais euh, xam naa dañ ci mënul dañ ci mënul lu bari moo tax ginnaaw bi tamit euh, fi ci jàppante yi fi amoon euh, takk der yi xawoon na police ñoo fi nekk xawoon nañ ci néew doole ba gisoon nañ ki nga xam ne mooy seen chef bi mu ngi doon wax naan il faut gendarmerie ñëw il faut la la gendarmerie il faut qu'il vienne loolu waxoon na ko ngir néew doole goo xam ne néewoon nañ ko doole booy di génne fu ne ndax fii dafa xaw bari ay mbedd te booy yi miin mbedd yi. Euh, fu ne la ñuy génnee euh, euh, barricade benn yoon yombul fii nii ndax mbedd yi ak ni mu demee fii ci Mbàkke loolu mooy li nga xam ne moo fi xew ñi ngi jamono bii ci rond bi nga xam ne mooy jógee permanence su Pastef booy dem boulevard Ndoyeen fii nga war a jaar donc bu Ousmane Sonko doon dem fii lay jaar xamuñu nag ndax dina ñëw wala du ñëw xamuñu ndax dinañ ko bàyyi mu jàll wala duñ ko bàyyi mu jàll xamuñu ndax dina par euh, eggale li nga xam ne moom la bëggoon parce que guddi na ndaxam euh, gis nañu ci euh, suñu ay renseignement ñu ne Ousmane Sonko mi ngi ànd ak yeneen leader yi ñu ci mel ni giimar yu Sagna ñoom sëñ Cheikh Thioro donte que jëm nañ tenter pour jot ñi nga xam ne ñooy leaderu Pastef Touba yi nga xam ne ñi ngi ci cortège ba mais jotuñu leen euh, ginnaaw bi ci lañ jot ki nga xam ne mooy Bada Ndiaye euh, bokk ci GPS euh, nekk adjoint coordinateur moo ñu xamal ne moom mi ngi permanence su Pastef waaye nag ñi ngi wàcc ngir ànd ak Ousmane Sonko ñi ngi koy xaar ci permanence bi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li fi jot xew fii ci Mbacké ñu leen di toppal rek leneen lu fi xewaat rek lu fi amaat di ngeen ko am en direct fii ci Mbacké